d'abord il faut ñu ñu booy wootee waxtaan hmm. il faut ñu ñu xam fan lañ jëm mais ma baamtu benn mbir parce que en en dans une république ci lañ nekk dans une démocratie ci lañ nekk même bu nekkee de am na yu bëri salfaañ nañ ko la dialogue doit être permanent continu mais ba pare il doit pas être dafa am solo trop waxtaan laayent biir bu koy def dañuy yëwanante li ci fi ñu jëm léegi moom moo woote dialogue woote dialogue ñu déglu ko mu toog fi mu toog ci ci fête bi ñu jógee mooy Korité nee nañu on va organiser ça après waa quoi par na ci léegi moom mooy définir kañ la nan la ak naka la booy woo nit ñi waxtaan da ngay yaa ngay ubbi sa dënn ba noppi ensuite nga nangoo waxtaanee lépp mais ki ngay waxtaanal il faut que mu jox la crédibilité maanaam man ku ma dig añ. jigéenu ma ndékki joxu ma añ joxu ma bu ne ma damay reer dama xam ne damay fande parce que ni def ba joxu ma ndékki ni mu def ba joxuma añ noonu la ba dinaa fande dafa defoon fii dialogue parce que démb moom laa wax sax tout le temps démb dafa lu muy jëriñ woote wu fii woon dialogue bi bi ñu nekkee réew mi nekkee ci ci ci waajal dëgg mën élection 2019 mu woote dialogue ñu ñëw nit ñi waxtaan def seen seen wax kenn ku ne wax li la mu ñu seppi li ko intéressé woon mooy parrainage te mu bamtu lii parce que man ñi may waxal dafa am ay étudiants yi nekk toog fii di ma déglu parrainage ci démocratie lu baax la filtre démocratique la mais ça ne doit pas être discriminatoire mu génne parrainage mbooloo mi ñu doon toll vingt sept candidats la ñu woon bu nekk yéen ñu fàttaliku juróoma jàll. liñ ci dëgg moom liñ ci dëgg liñ ci nasaroon xam na ko parce que Macky Sall président de la République bu bañ ko sàlloon ku wax ne du génie politique da ngay wax loo neex li ci mooy fexe ba électorat du émité wu. juróomi candidat la soxla woon xam na coefficient électoral bi xam na carte électorale bi. day jàll day jàll premier jàll premier tour loolu moo ci intéressé woon. Mhm. ñu romb loolu ñu wax beneen. ma ko ci intéressé woon sërëm nit ñi ñu bàyyi wax yëpp Aliou waa léegi kooku suñu 400000. waaw mu ko waxee suñu 400000 man xaw ma ndax am na ci droit bi déedéet sax loolu yëpp jaar fi tey jii réew mi toll am fu mu toll. xel yi jaxasoo. parce que démocratie dafa muy suba yoo xam ne ñun li ñu may chance mooy turuux yi fi nekk yépp mooy tarixa kenn ku ne dafa am kàddu ci réew mi kenn ku dafa am li jox. liñ def li euh, sëñ Bass Abdou Khadre jox porte mais am njàngat la wax ma ci moom de ni ñuy toog sax bi xool am njàngat la ci ñoom réew mi toll na dayoo. dañuy wax mu dellu siwaat ci l'essentiel mooy les points les fondamentaux soxlawul sax mu lii li li ci nekk na delluwaat ci fondamentaux yi pour réew mi am jàmm fondamentaux yi nag mooy lenn kenn ku nekk ak ak yelleefam nga jox ko ñaar kilifa day am loo xam ne da koy dégg tam xamul ko ma baam tur da nga koy dégg tam xamul ko gis ko jëlle la ko mais war a dogal nga dogal te yàlla tax mais doo taxas gi muy woon kii kumba kumba ndey kumba am ndey kii kumba amul ndey ba fu mu la soobee mu war na ci doowu mun nga woote dialogue te dialogue li ñu wax la ci mbir de quoi demee si kenn xamu ko xaw ma ndax su ma dem naa yem du yeewam mhm. mais fi ñuy mujj mooy kenn ku ne day am déception parce que dafa am lum nar d'accord mhm. lim nar soxlawul nekk mathématicien soxlawul nekk physicien soxlawul nga dem génn sax awal lim nar mooy moom nan la fexee ba moom li mu yor fu war bi mu yor ak ñoñom ñu conserver ko. d' accord soit moom mu nekk candidat mbaa keneen nekk candidat. comme nee mënul bokk mu bokk peut-être. mu